mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu santatee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ndokkeel ak jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp fun mën a nekk ci àdduna bi rek moo xam ñu nekk ci réew mi wala ñu nekk bitim réew ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi mbokk yi tey ji nag dañ leen fas yéene ñëw ak yéen ci secret bu ama am solo muy secret bo xamne ne secret bu am solo la ci walu wërsëg rawti na kep ko xamne da nga gis ne walu am-am daf la xawa jafé na nga fexé ba def secret bi insha allah rabbi boko defé ni ñukay waxé insha allah rabbi bi di am-am dina la yomb lool te lepp lo xamne am nga ko timit dina dess ci sab loxo insha allah xanaa bala ñuy sore yow ya mi nga xam ne yaay seetaan vidéo bi bu fekkee ne abonné goo ci seen bi ñu ngi lay nga abonné te bës kolos bi te sem vidéo bi bu dee neex na la te nga partage ko maximum say xarit mu gën a yaatu ndax vidéo yi njëriñ moom nu mu gën a yaatu rek ci la gëne di wax yow mi nga xam ne da nga bëgg a def fo mën nek ci aduna bi mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim réew te bëgg ku la defal listixaar man nga joko ak ñun ben ci ñaari numéro yi ñaari numéro yi am na whatsapp muy 77 684 28 28 wala 77 668 28 28 incha allah rabbi bo joko ak ñun des na la defal listixaar ku leer nañ incha allah di wax na garab yi nga xamne moy garab yi katani moy garab yi musxam yi disponible na jamono ji ñuy wax ak yeen kep ko xamne ne yittewoo ci rek man nga ñun ci même numéro bi di wax tamit ne ñi nga xamne dañuy bëgg ci groupe whatsapp bi man nañ ñu contacté ci même numéro bi waye nak groupe whatsapp bi amna ay sartu yu ñu ci bokké kep ko xamne contacté rek inshallah rabbi des na la wax sarte yi nga xam ne moom la ñuy bokk ci groupe whatsapp bi képp koo xam ne am na vidéo bu ñu dugal mu xaw a am lu desee leer ci yow rek incha allah mën nga ñu contacter ci numéro bi wala nga bind say laaj ci commentaire yi allah rabbi des na la ci tontu mbokk yi secret bi ñu indi tey mooy alam nasarah laka sadrak wa wada'na anka wisrak الذي أنقض سهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانشب وإلى ربك فرحب ألم نسرا غي بند بوك بند واين بو نيو با تي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا manam ñaari ay fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran mom ngay 308 moom nga koy baamu muy adadu rasaq 308 nga koy baamu fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran boo noppee nga àggale alam nasra bi fa isha fan fanshab wa ila rabbika farhab tëje ko xaatimu Suleymaan bi nga xam ne juróom ñaari bunt la boo noppee secret bi secret bi ama am solo nag secret mbokk yi moo nekk nii secret bi bo paré na nga fexé bo wut ndoxum taw ndoxum taw ak ndoxum geej ak ndoxu ten ñatt ndox yi nga fexé bo wut ko boko wuté nga jéma fexé bo tuti sunguf was sunguf waswasuur tuuti sunguf was momin nga wut ko wut parfum bi ñuy wax parfum kaafoor tamuy parfum bu wex bi nga fexé ba def ko safara incha allahu rabbi di ko jëfandikoo bu fekkee ne da ngaa nekkoon koo xam ne wàllu am-am daf la jafe dina la yomb lool incha allah di la wax na nga abonné ta partage vidéo bi wasalaam